Serigne Ahmadou Niang Nguirane kan mooy Cheikh Moustapha. jërëjëf Serigne Cheikh Anta jazakallahu xayran yal na yàlla fay yiw te mott li yéene ji eh, Cheikh ñu bëgg waxtaane référence la modèle la waxtaane wuñ ko itam ci ak daanukat waxtaane wuñ ko itam ci ak baatin ci am xel ak nite ak xam-xam yooyu ñuy waxtaan ngir ñu bëgg a roy xam fu ñu teg seen tànk rawatina nag fii nga xamante ni fi la jamono toll nga xam ne yàqu-yàqu yu bari na nit ñi seen ngor dem na seen diine xajam na seeni jikko yàqu na te daf ca mel ni sax li ci gën a mooy ñàkk giñ ko ñàkk yëg mm-hmm. ndax nit ñi crise économique la ñuy jàmbat waaye crise de bi ñu dal néew na nga gis ku cay wax li may faral di wax rek ni léeg-léeg nga dégg wolof naan fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp teppal maa ndeysaan booba ñu am xel seenu fit dem na jaaxle nañ ndax tepp teppal fajul aw mar raxasut bool te ci ngiis la jëm te day tax tilimali mooy lu baax a ngi jeex <laughs> waaw lu baax a ngi jeex tilimuñu ko jëmm ji ñu bëgg a waxtaane nag mm-hmm. jëmm la joo xamante ni nii fa tabaarakallah yoon wi yëpp ameel nañ ko njukkal ndax taxawaayam mm-hmm. émission bii nag émission la mm-hmm. ndax buñ ne émission saalihiina mm-hmm. teg ci saalihaat mm-hmm. buñ ko waxtaanee rek danga xam ne ñoo yi ñu tudd émission bi émission bi moom am na ci place mm-hmm. ndax dafa daan wax ni fu lu baax ne ku baax ko fa yóbbu waaye bu fa saxee nag ab defarkat fa ne moo tax li sëñ Tuubaa indi woon sàmm na ko waggar na ko ñàkk na ko itam ba dara mëntu koo ñàkk te biñ ko bi sëñ bi bàyyi ko liir bu xiiboon la bu néew doole boo xamante ni ni néew nay toppatoo waaye fi mu ni mbër la moo xam ne ku sóoru mu daan la te jaar sa kaw jàll loolu taxawaayam la nit nag manees na koo xam xamle ci tudd ay bokkam ñu ne la barab sàngam la bokk ñii la bokkal manees na koo tudd itam ci tudd ñaari waajuram ne la diw ak diw ñoo ko jaboote nga xam ko mhm. manees na koo xam itam ci ñi muy àndal ñun la ñoom diw lay àndal mm-hmm. nga xam ko manees na koo xam itam ci kenn ci njabootam ñun la mooy waajuru diw ak diw nga nga xam naa ko mm-hmm. yooyu yëpp buñ ci def sëñ mu doy ko sëkk manees na na koo xam ne itam ci jëfam nga xam dañ naan mooy diw nga xam ne fardul alam la kenn di ko représenté kenn mm-hmm. ci moom waaye bu ñu delloo ci ñu baaxoo di xam le nit mooy kokki la bokk surtout Matar Ndumbe mhm. ma sañcoon kokki Matar Ndumbe sëñ Tuubaa daa wax ci jasaawu sakoorul atuuf ni bi mu fi nekk mooy sangub kum jamonoonteel ci suufus mhm. te buñ fàtte ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni iyaakum wala aroqa fa inna la aroqa dasas doon wax góor ñi ñu bàyyi xel bu baax a baax fi ñu jële ji soxna ndax sidit mhm. dafay royaat ndax mag ñi dañuy wax ni ku la jikkoom neexut bul jëlub jigéenam ndax boo jëlee bul jëlee jigéen ba it ku la càmmiñam neexut bul jëlub jigéenam ndax boo jëlee jigéen ba it càmmiñ la doon muy jur <laughs> moo tax doon bàyyi xel lu am solo Maxtaar Ndumbe moom yi moo jur Modou Faa Xujja Modou Faa Xujja jur sëñ kook ci njaga isa sëñ kook ci njaga isa mooy waajuru soxna xarimaam Jóob soxna xarimaam Jóob mooy waajuru soxna Amin Talloo soxna Amin Tolo mooy waajuru Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine foofu yi mu bokk ci kok yi bokk gu yaatu la ndax buñ ne sëñ kokki Njaga Isa danga cey daal di gis soxna Fatou Isa muy waajuru maam Cerno Biraay kon maam Cerno nijaay mm-hmm. yi sëñ Mourou Sow suñ ne sëñ kokki Njaga Isa danga cey daal di gis Modou maam soxna Fall muy waajur soxna Fatima du maam muy waajur Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikhul Khadim buñ nee sëñ kokki njaga isa ba tey dañ cey daal di gis ci ñi soxna si bokkal muy Marema ak Ndaak ak Penda Buya ak Samba Amint Marema moo jur sëñ Matar Marema muy waajur sëñ Madiba Sylla Penda Boye moo jur Binta Jaxate ak Mariama Jaxate Binta moo jur Soxna Mbàkke Jaxate mu jur suñu Adi Touré ci Fass Touré mm-hmm. ok it ko fekk ci làmbi diine da ko way mm-hmm. naka noonu itam Samba Aminta moo am doom tuddewaat ko Penda Boye seen jigéen boobu yi mu jur sëñ Amar Fall Mbàkke ak sëñ Omar Mbàkke Gelongal muy waajuru Sëriñ Cerno muy xalifab sëñ Omar Gelongal mu ngi ñaan suñu borom yokk aw fanam te may ko wér mm-hmm. naka noonu itam soxna pend buye moom yi moom lañu yóbbu woon wuro Madi mu am fa Ibra pend buye mm-hmm. Ibra pend buye am doom tuddeewaat ko yow juróom bu jigéen woowu muy pend buye ba mm-hmm. ñu jox ko Seexul Xadim mu am ci ñu jox ko sëñ Omar Jalongal mu am ci sëñ Modou Mbacke mi ngi xalifa sëñ Omar moo ko jëkk a mm-hmm. ñu ngi nuyu sëñ Amdi ak njaboot ki mu bokkal naka noonu itam danañ gis ci njaga isam mayit Balla may Balla moo jur Awa Balla Kumba Ñuul mu jur sëñ Modou Awa Balla ak Cheikh Awa Balla ak sëñ Mbacke Ñal ak soxna Faati Mbacke soxna Faati Mbacke ñu jox sëñ am sëtu mu am ci soxna Seynabu Jaxate ñu jox ko sëñ Suhaybu mu am ci sëñ Cheikh Sey ñooñu dañu ne nga gis ni Faati Isa mi waajuru borom Daarul Mawti ak soxna Aminta Mbacke ak Fatimatu Bintu Aminta Mbacke lañ jox sëñ Dame Abdourahmane loo mu taawloo ci Fatilo ñu jox ko sëriñ Amar Fall Mbacke mu am ci Cheikh Fatilo mu teg ci Aminta Lo jox ko sëñ Mourou Moussa mu am ci soxna Mariam ak sëñ Mbacke Madina mu teg ci soxna Aïssatou Lo ñu jox ko sëñ Fall mu taawloo ci soxna Mbène Fall Mariama ñu jox ko sëñ Basiru mu am ci soxna Daba ak soxna Asu soxna Asu mooy waajuru sëñ Moustapha Abdoulaye Cissé Fatimatu Bintu moom lañ yotoon sëñ Mandu Umbe Xabbaan mu am ci sëñ Modu Xabbaan mm-hmm. kon askan wu yaatu la mm-hmm. boo xamante ni nii fa tabaarakalla suñ borom def barke mm-hmm. soxna soos yi nag di soxna Aminata bi nga xamante ni suñ borom dogal na mu toll ci dem kër kër Madiang Fallou lañ ko yóbbu Madiang nag nit yàlla la ku amub cër ci suñ borom la te sëñ yi tam bëtam mi ngi ko tegoon ci nit yi suñu borom yooyu nga xamante ni dañoo am cër mm-hmm. dafay dem ak qalbuka wa ala saddaati amwaati tabkil aladi alayhim ka samawaati mm-hmm. soxna si jamono yooyu boobu ma nga foofu mm-hmm. ñu wax ni sëñ bi ñëw na fa bis boo xamante ne ni ku ñu wax sëñ Ablaye Jaw moo ko sant sëñ Ablaye bi mu ñëwee bañ tekki ba pare bañ dalal sëñ bi soxna Aminta Lo ma nga foofee ci kër soxna Amin daa wax sëñ Ablaye Diaw ni ko dama fee yoroon lu toll ci ñaari àndaari pepp mhm. bëggoon ñu defal ko fasu ci gafatal kuy toppatoo ak jur nit taxul ñuy wax mhm. ba pare ni nag daa bëgg ñu may ko ñaari fepp dugub ci li fas wi di dund yi mooy li fas wi yàq seex ba tooy mhm. ba mu yàbbiwaat ko ci gafaga gi mu barkeeloo sëñ Ablaye dem wax loolu sëñ bi sëñ bi ni ko mënees na ko jël pepp ma sotti ca gafaga ga li fas wi yàbbi di ko tooyal di dugalaat ñu may ko ci ñaari fepp mu barkeeloo loola xëy na lu ko suñ borom wan la ci jëmm ji waaye ak seeguñ ca woon mm-hmm. kon teel naa xam sëñ bi ci coobare suñ borom ñu wax ni sëñ bi ñëwaat na fa beneen yoon boo xam daf doon laablu ay séer sëñ ma jang woo soxna Aminta Lo sant ko mais bu tooyal ba ba mu paree da caa góox ñaari góox la ca des mu wànq ci biir néegam tóor ko fa póotit boobaa itam gis bu gis bu sori lay doon boo xamante ni ni xëy na booba lam cee gis ak lam cee xam moom la suñ borom dogal. yëfi biir la yëfi biir la. bi sëñ ci gont nag. Mhm. laabalug sori ak yooyu sedd xolam sëñ bi wax Madiagne ni ko ki ma doon defaral lii la ñëw ma ñaanal ko. mu indi soxna Aminta mu dikkee sëñ bi ni ko waxal loo bëgg mu ne xanaa ko am xanaa am ku mel ne yow. sëñ Tuubaa ni ko loolu faat na. tey faat na wallaay faat waaye inna allah ala kulli shay'in qadir waaw. faat na waaye yàlla mën na lu ne mm-hmm. at koy ñaanal maja itam dénk ko ni ko nag soxna si bëgg naa nga ñaanal ko ndax sonn na sama kër gi te njaboot gi fi amoon dañoo wàcc ñi amoon ak maja yëpp dañoo wàcc mm-hmm. mu ñaanal ko sëñ bi ko soob yàlla daal di wàññi ko dem ñu ca toggee ab biir majang wàcc ci liggéey soxna si liggéey ba liggéey ba jeex mu war a delluwaat ci ay bokkam fekk na tax si Matar Bintaloo faatu woon na bu yàgg. bàyyam bàyyam dëkk Ndaam di mbokkum Ndaam yëpp. tax si Matar Binta 1866 la génn àdduna. te fekk booba eh, ndate yàlla eh, la sagar ba dàq waalo mu làqatu ji ñoom rek. ñu làqar ci ku ñu lànk ñu làkk dëkk ba moo tax ñaan ñoom rek doom. ci jamono yooyu nag lañ jël tafsir Matar yóbbu ko gore ci mbeex mi moo tax ñu naan Matar ma ca mbeex ma. mooy mm-hmm. dañ ko mbaara ci ci mbeexum géej gi mm-hmm. bàyyi ko foofu sedd beeg yooyu tax deret ji ni mu war a dawee dawetul mais reyuñu ko loolu moo ko génn àdduna moo tax ñu naan mataaran ca mbeex ma bi nga xamante ne nii nag soxna si ñibbisi na soxna Penda Buye moom yi nga xam ne Samba Aminta mi bokk fari maam ndey ak moo ko moo moo moo fa nekk soxna Penda Buye moomu sëñ Amar Fall ko yor sëñ Ibrahima Mbacke ko yor moo jur sëñ Amar Fall Mbacke ak sëñ Ibrahima Mbacke ak sëñ Omar Galongal mm-hmm. sëñ Mbàkke Kajoor moom mi ko yor muy sëñ Ibrahima ak maam Mor ñoom ñaari doom la fi maam Balla bàyyi moo wax sëñ bi ko am naa rakk ju baax joo xam ne bëggoon naa la koo dénk kër Madiang la newoon te Madiang wàcc na ba mu ñibbi bi xamal ko ni ko jamono yi yoruma lu ma def ci soxna ndax booba sëñ bi ñun yoroon yëpp yeewi na leen yoratul ba pare sëñ bi ni ko nit damaa toll ci waaj bëgg a jóge bawal jóge Kajoor dem bawal waaye soxna si tee ko bàyyi wasi yëpp soxna pend buya soxna soos yi la ko bi bind ba muy jox sëñ bi boppam booba suñ Maamoor Anta Sali ngi fi sëñ Mbàkke Kajoor ngi booba sëñ bi wóoteegul mooy waajuru sëñ Amar Fall ak sëñ Amar Gello nga moom moom la bindal dénkaane boobu yi soxna soos yi nag taxawaay bi mu doon taxawu sëñ bi ndax sëñ Tuubaa daa wax ni toll naa Mbàkke Kajoor jamono yoo xamante ni su ma wuutee dee suma sédd suñu wootee dee suma nekk ndax kër ga daaral la waaye nee na soxna pend bu ma féete woon na ma foo xam ne bu ko soxna jaara fekkoon mënu ko weesu ba tax na mu nangul ko loolu bi mu ko nangulee loolu nag sëñ bi takk fa ay bagaasam ñëw bawal bi mu ñëwee bawal fekk si fi nijaayam sëñ Bousso bi bi mu laaj ko yëngu du réy ndax booba teel bi ñu ngi daw di jébbal si mag ñaa ngi daw di song sëñ Bousso bi laaj ko ndax yëngu bi jigéen a ngi ko ànd ànd kenn soxna yëpp bàyyim la sëñ Bousso bi ni ko léegi aw busaa ngi fi Abdou Kumbaan mi ko yoroon faatuñ ba mu liggéey moom itam ba ñibbi dama la koy jox sëñ bi ni ko joxe naa sama kàddu ca Kajoor sëñ bi ni ko léegi loolu du ci yàq dara ma des na koo def bu kee ñëwee tam nekk place nga xam ni Abdou Kumbaan moom it daa gént xëy netti li soxna aw bu sa gént gi ni ko damaa gént nga am doom ju yilif jamono man damaa yaakaar damay bëgg a dee ndax doom jooju du bàyyi <laughs> mooy ko loolu ëpp na. kooku xam nga du nit ko ordinaire. déedéet ki mën a gis leeru ah, sëñ Fallu te après mu dem xare des ca xare ba soxna si liggéey ñibbi si sëñ fa ñu jox ko ko soxna Awa Bousso soxna Amin toll kër juróom benn weer mais teewut sëñ Moussa saa magee na sëñ Fallu juróom benn weer mhm. coobaree suñu borom la suñu borom la soog kii waroon doon taw mhm. jiitu li nga xamante ne ni loolu am na soxna si bi ñu ko waajalee pir mu ñëw benn daje waxtaan mhm. booba ci fas la ñuy waral moo tax ñaan di waragul ak teg mhm. daf leen naw ñaan ni leen dama bëggoon ngeen may ma mhm. bañ génn ma door a war ndax jigéen mënta war ci biiru góor ñu nangul ko lam wax bañ génnee mu ni leen fas yuy jóge ci sëñ bi laa xalaatu la war damay ànd ak yéen def nii ngeen def muy tànk ba keroog ñu agsi ci sëñ bi maam pour xam ak génération bi ni yéen barke dañ koy jënd barke du du looy nelaw rek mu dab la mm-hmm. sëñ Tuubaa daa wax ni barke ak alxuraan ak àjjanaayam suñ borom mayu ko da koy jaay te njëg gi itam nanguwul nga avance desal ko dangay ngay fay ba mat mu doon la koo jox mm-hmm. ñett koo dégg ñu ne am na ko xaw naa dee mu ànd ak ñoom ñëw bi mu ñëwee alalu farataam ji nga xamante ni moom moo ko moom ñu ko daan baaxoo jox jigéen loolu lépp da ko dajale ëmb ko jox ko Sëñ Tuubaa muy boyatu or ak la am daal ci jur ak alal lépp ba Sëñ Tuubaa ni ko waaye nitug loo doon mu ne ko tëdd takkaay tëdd lay tekk si te man tëdd si wu ma damaa liggéey si ngërëmal yàlla la fi wut si li ko gën yëngoot ci noonu la nekkee woon ak sëy bi muy nekk loo xamante ni nii jigéen ñi jamono ñëpp war nañ cee roy ngir fàggul seeni doom barke mm-hmm. ak liggéeyal suñ borom ci jëm yooyu yii leen yàlla boole mm-hmm. bi loolu amee nag ñun wax nañ ni musta romb suñ bi ak i dàllam mm-hmm. moom soxna mi ne soxna mi te loo mos ta romb sëñ bi ki dàll sëñ bi mosu ko romb benn yoon tam te aggut suuf ba sëñ bi jàll mu door a jóg moom la ñuy wax waaw sëñ Tuubaa ko tudde Aminata Lo almardi ak dundam Aminata Lo mu ñu mu ñu gërëm li am hmm. mooy ñu gërëm ñu na am na bés boo xam ne sëñ bi xëy sum ngóorto la jël jox ko maam Thierno ko joxal ma ko Aminata Lo te santal ma ko koo raay taf ci jëm sa jëm ni ko doy faan naa ko addiya fii dama fi indi waaye dama fi jële loolu pas-pas la yitte ju kawe la sëñ bi yor na layu gerte ci wetam nii sëñ mu romb ko sëñ bi ni ko amintoloo tibbal ci gerte gi mu taf ci ñaari doom sëñ bi ni ko tibbal mu ni ko baax na mu ni ko tibbal mu ni ko su baaxee baax na sëñ bi ni ko baax na loolu xëy na communication la bu xam seen diggante ba Cheikh Mouhamadul Moustapha gane àdduna ci Daaru Salaam ci 1888 ci fukki fan ci aw tamxarit di fukki guddi yi ak benn Cheikh Mouhamadou Fadel ñëw ci la 27 ci guddi rajab sëñ Mat Lamin Jóob moo ko nettali te daa wax ni axbarani xalifatuhul xaali alxaaji Mouhamad Fadel mu ni sëñ Fallu mii moo ma nettali ne ma sëñ Muusaa ci date bi la ñëw jamono moom mu ñëw ci beetal <laughs> loolu leer ndax loolu la sëñ Mat Lamin bind mm-hmm. bi nga xamante ni nii sëñ Muusaa ñëw na jamono it ci la sëñ bi gis leeru Tuubaa nga xam ne mooy barab bi nga xamante ni moom la doon wut fenn fu tem mu tuñ tuñ yi fa jëm fa leerug barab bi bu ko féetee nii ba yàgg mu féete ko nii ba mujj ñu koy wooyee dafa Mor Anta Sali bi lu tax mooy sëñ bi day jublu penku di dox ba mu yàgg mu ni karfet jàdd leer gi féete ko nii ba mu doxee ba mu yàgg leer gi ko nii mooy karfetat jàddaat mujj ñu defee ni kii dafa am tog sagom fekk leerug Touba lay wër Touba rek bis bi bis boobu yi sëñ Moussa gane àdduna nag ci la suñu borom wan ni ko barab bi ko doon wër fii la mu commencé sanc ba nekk ca li'tikaaf ba moo tax ñu ni maam Cerno yónni xool ni ndooy ca yoor yoor mu mu yëgale ko sëñ gan gi ñëw mu maam Cerno demee sëñ Masamba Faati moom sëñ Bousso bi hmm, rakki sëñ Mbàkke Bousso moom lañ ko wax mu wax sëñ bi sëñ bi joxe ndigal ni nañ ko wutal aw tur moom mi ngi ci xalwa ñu tudde ko Muhammadul Mustafa hmm. mu door a door a jóge ci xalwa ba njëkk ndax xam na barab ba mu doon wër bi nga xamante ne ni loolu am na sëriñ bi daal di waajal njaboot gi ñu dem Touba. Mhm. Cheikh Mouhamad Al Fadel ñëw ci weeru rajab foofu. Mhm. ci Daaru Salaam. Mhm. ñenn ñi wax nañ tuubaa Touba ñenn ñi ni Daaru Salaam. waaye sëñ Fall moom Daaru Salaam la moom moom Daaru ndax da daan def bu guddi jotee mu ñëw fanaan si Daaru Salaam bu xëyee dem yendu ji kër sëñ Afia ñu bokkal waajur jigéen ngir. dundale ko mhm. guddi yi nga xamante ne ni moom la dikk jamono mhm. bi nga xamante ni itam ñu ngi dund ci noonu mhm. muy nekkinu rafet woow yi nga xamante ni sox si nekkoon na ko nekk ko ak mbokk daaraam moom yi di na aw Busa nekk yi itam jigéen ñi dañ cee war a jàngee nan la ñuy nekkee ak mbokk daara sëñ Baara gane àdduna ci Kasasine 1309 di 1891 feeña Touba di doomi sëñ Touba ji jëkk a feeña Touba muy foofu yi barabu jumaa ji nekk moo doon kër sëñ bi foofu la feeña jamono bi nga xamante ne ni sëñ Baara gane na jamono ca jumaa de sa ca ñaar fan yi ak juróom-ñett di dugg ca rajab ba koor ga fukki fan yi ak juróom la sëriñ bi xëy wax la ni leen ni suñ boroom xamal na ma sama dund fii la yem yéen ñi ku ci mën a dem ma des fi àggale liggéey muy lu lu lu rëy loo xamante ne ni histoire war na koy bàyyi xel. Mhm. sëñ Moussa Gana ni ndeyam ji moo jëkk a joxe ak room addiya moom soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo. Mhm. soxna Aminata Lo wax sëñ bi ni ko bu fekkee suñu borom seexlu wut sama room mën naa laa demal nga àggale liggéey. mooy ki njëkk a joxe bakkanam ci yoonu Mouride. awa bu sa des wéttali te wóolu naa ko sama njaboot. Mhm. sëñ bi ko ñi fi bàyyi danaa doon seen ndey doon seen bàyyi mu bàyyi fi sa pént buy door a fer ak ku nekk ci gannaaw di bootu te wàcc mut mhm. ñooñu ku xam li seen ndey mën doon ci ñoom nga leen fee bàyyi dem barsàq loo wax dëgg la loolu fukki fan ak juróom-ñeent la di dimanche altine ñaar fukki fan talaata ñaar fukki fan ak benn te guddi la doon dem ca lobb ba doon wuti mat ngir laax bu ko sëñ bi doon defar loon ndox suuf laal fekk sëñ bi bu jullee foofu ci jullikaayu eeg bi fu jullee timis julli gee ma ngay naafila ji ci guy taxee dañuy dem fekk ko mu kàbbar laata muy sëlmal naafilaam yu bari yooyu suñ borom yow ko dogalam ba ñu xëyee àllarba la ko rob foofu yi mu tëdd tey keroog gisub rob ba daa wax sëñ Matar Mariama mu jur sëñ Ndindi ñu ko Matar mbaa du ngeen wax ni amintaloo dama ko indi fii bëgg fi gën a sori ci Jolof sànni ko fi mu ne ko ah, déedéet mu ne ko kanam ku koy ñaanal danga koy sànni armée li fees na ca Jolof. fii ci Touba. ah Touba la. Touba ci guy tax. boobu daa ne Jolof. dafa dafa dafay faral daa sës Jolof moo tax. Mhm. Touba Jolof daa nekk frontière Jolof ak Bawol ak Kajoor ak Saloum mhm. moo tax mu ne ko fi gën a sori ci ci Jolof Tuubal Maxrus waaw ah, kay moo tax moo tax doy wi day at yu am solo yoo xamante ni mat naa bàyyi te bi muy dem sëñ bi nee na benn leçon moo tee mu jeexal risaala Risaala Ibn Abi Sayyid nga xam ne fi mu doon nii ñuy def brevet ñoo koy jàng <laughs> soxna si benn leçon si biir moo teewoon mu àggal jeexal ko fekk am ak ak ko soxna Awa mhm. yooyu ci la sëñ Moodu bi yor leen biir kër ba ci 1895 sëriñ bi dalal leen jàng ci ko sëñ Suwayb bi foofu lañ dala jàng daaru xudus daaru rahman daaru naar mhm. ndax sëñ bi daa sañc Touba fi jumaa ji nekk tudde ko Touba mhm. sañcaat geneen kër tuddee ko daarul xudus li rabbil alamina mursilu ahmada mursilu ahmada waaw mag ñi daan ko kër yàlla sañc kër sëñ Suwayb bu tudde ko daaru rahman man ñi naa ko kër daaru naar ndax dafa gànne naar yi sëriñ fi borom xam-xam yi ñoom la fa daan dalal mhm. te ñooñu itam raxmaana baax ci ñoom nag waaw sañ ci daarul min nan tudde ko daarul min nan gan ceddo yi nga xam ne dañoo tuub bàyyi lañ ñooloon dëgg mën sëriñ bi lañ ñëw dalal ñooñu itam min nan a baax ci ñoom ndax tàmm nañ teraanga te bu leen delloowaatee ci tumuraanke mën naam dana metti ci ñoom ndax tur yi dëkk ci sëñ bi dafay dafay. day day firiku ci lépp firiku ci lépp. bu ne gannaaw sa bakkan la moo tax armée de ne fa moo tax moom mu tëdd fa. Mhm. bi mu leen dalalee jàng kër sëñ Suhaybu moom suñu Modou sëñ Fallou sëñ Omar Galangal sëñ bee leen jàngalal boppam bañ toll ci sóoratu Yaasin. Yaasin Yaasin. fukki si ba juróom. natt bi dikk. Mhm. mu jaayante googu mu jaayante woon ak liggéey bi mu dem Jolof. bi muy dem Jolof daa yóbbaale sëñ Modou ak sëñ Fall sëñ Omar mu joxe ko ndaam sëñ ndaam Abdourahmane Lo mu nekk ci fere yi dañ la fekk si balaa yàgg moom mu yóbbu leen daara daara daaru xuddos gën a ci Jolof ndax Jolof Mbàkke Bari kër ga daaru xuddos la ko sëñ bi tudd hmm. Mbàkke Bari Jolof fa ma tëdd foofee noonu Mbàkke Bari Jolof foofee sëñ bi départ dem ci exil ba kër gëm fasancoon daaru xuddos la ko fa ne newoon yor leen fa di leen jàngal ba bi nattu bi dikkee mu bàyyi leen ak borom daaru noot yi foofa la taalif xasida xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu ba mu ne suba lay dem ajjuma ci guddi la ko taalif mm-hmm. foofee ba muy dem la wax ak borom daaru noot dénk ko njaboot ñu ko buñ buun bunu saalañ bunu jagam cay borom daaru ñu ko itam buñ fortaatu xam-xam buñ fortaatu ay tool buñ fortaatu soxna kon sëñ bi xamoon nañ dañ màgg dañ barkeel maam Thierno ni ko loolu moo ni ko buun mooy gëj lekk ak ndawal day yàq jikko jagam mooy bàyyi saw yaram mu salte nga xam ne boo wokkee say ween yi mu fees dell saalañ mooy bàyyi sa kawar mu ni coxur yoo xam ne di kenn xam lu muy néew ñu ko buñ fortaatu xam-xam mooy buñ jàng ci ko xamul dara fortaatu xam-xam mooy jàng ci ko xamul dara uhuh. boo baree téere yooyu jeexalit dañu xam ne déggoo ko ndax ki la ko jàngal déggu dëgg ko booy fortaatu ay tool mu ni ko boo doon jàmbaar itam doo bari ay sabaar ay sàq mooy bay ci suuf su sàppi ko fortaatu ay tool mooy bay ci suuf su sàppi loo doon doon jàmbaar doo bari jàpp mu ni ko fortaatu soxna mu ni ko boo doon wëlli itam am saari ko ngay jur boo doon wëlli te fortaatu soxna doo jur mukk ni iskay ah, loolu loolu moo tax nag jeexital boobu yi feeñ ci njaboot gi njabootu sëñ bi muy dañ leen a tànnal ay wajur nga am ko doon laaj sëñ baara ni ko ñaanug wàlliyu ak liggéeyam day lu ci gën sëñ baara ni ko ku ndeyam liggéeyu du taseg wàlliyu bam di ko ñaanal seeblaat daan wax ne ñaar ñu seqal lenn te lu ci sikk ñu jiñ ka ca des kañ koy jiñ war naa góorgóorlu te doom lu ci sikk ndaje la ñu wax kenn du tudd bàyyi sëñ Basiiru daan wax ni portaatum soxna ko ñaxtiitum doom moo tax mag ñi xamoon bu baax a baax fi ñuy tànne bi nga xamante ne ni sëñ bi dem jafe-jafe yu ne jànkonte na ak moom. moom borom daaru borom wax ni ku mat a bàyyi xel la. ndax benn toujours damay cité ni Haaruna ab yonent la. dëgg yonent la ñoom ñaar ñoo bokk. Moussa dem ci xalwa ba bàyyi Haaruna gannaawam. ñeent fukki fan. la ñëwaat fekk waa këram di jaamu yoo sëram. sëñ Bamba génn bàyyi Thierno Birahim juróom ñetti at. ci tuuti. ñëw yoon wi gën a ëpp doole gën a ne gone yi mu fi bàyyi woon wàcc kaamil bind ko jàng xam-xam ba mu wóor ko ni mën nañ koo wóotu te ñoo indi yoon wi fii damay wax ku gën sëñ Tuubaa faaw nga gëm borom dara mënta ñàkk ku bëgg sëñ Tuubaa da nga a bàyyi xel la ah, ku nite la ku te xam sëñ Tuubaa te waggar moom borom dara ndax fi doon li ñuy nekk ci dund sëñ Tuubaa lépp lu néew ngay dégg ñun la caarlo nee na sëñ Tuubaa nee na te ku gën a xam sëñ bi amul ndax sëñ bee ko daanal jàng ba xëy faral lépp lu mu xam rek moom lépp lu mu xam suñu ni mu mel noonu la suñ bi bëggoon ab taalibe bi mel ni suñ bee ko tabax ba mu mel ni mu bëgg a mel moo tax mu bàyyi kook njabootam sëñ Fall daan wax ne suñu bàyyi moo ni yar ban ni ar mu jàngal nu ban ni jàngal ban ni ar mooy daaw leen a yaral seen i cër tàggatal leen seen xol boo leen gisee da ngay xam ni ñii modèle lañ bi nga xamante ni sëñ bi dem na nag ñu dem ndaam njàng mi ak farlo gi ak sëñ Modou xel moo nu neex mi ci fukki atam la mokk la mokkal Alxuraan dafa teel a mokkal Alxuraan ci fukki atam ndax kaamil bi njëkk a bind fekk na sëñ Tuubaa ci géej waaw kaamil ba dem na fekk sëñ bi ci géej gi Ablaye Ndour a ko yóbbu fekk mu ñëwoon fii am yitte yu doon dox ab lettre bu ko sëñ bi yoon woon ci seey ca lañ ko joxe kaamil bu sëñ Tuubaa maam Thierno ko ko jox taxawu ko jox ko ni ko boo demee ne kaamilu mu mu saa te it bëgg mu ñaanal ko ndax mu aw ko ci liggéey loola neex sëñ bi lool sëñ bi yàlla dogal 1902 mu ñibbisi bi ñibbisee nag njaboot gi tàmb tàmbali takko ak moom ndax keroog bi sëñ bi ñibbisee ba nekk ndar bi mu yónnee ci borom daaru ni na ko wuy si dañ nañ ko wool bi Birahim nañ indaale Amar Fall Mbàkke sama doom ak Astu Mbàkke ak Modou Moustapha ñii la maam Thierno bu àndal yóbbu sëy bi Astu Mbàkke mooy Astu Mbàkke ko jox. Astu Kajoor waajuru soxna Xarit Jóob ak soxna Faati Jóob sët yi mag ki njabootug sëñ bi moom moo leen jur ñi sëñ Tuubaa njëkk gis ci ay sët mooy seen wajur mooy seen wajur muy soxna Fat Diop gane àddina deux ak yi mag ñoom sëñ nekkoon nañu sëñ bi téyel kenn ki di wajuru soxna euh, soxna daamu sëñ Mbàkke Madina kenn ki di wajur sëñ Abdou Root mu sëñ Moodu Farmatam sëñ Afe noonu noonu noonu la demee mm-hmm. léegi nag bi nga xamante ni sëñ bi ñëw na sëñ bi yàggu fi 11 novembre 1902 la ñëw léegi 3 ñu exilé mu dem gànnaar mm-hmm. waaye gànnaar sëñ bi day étape bu am solo ndax tubaab yi dañoo jële sëriñ bi ci tukki bu sori ba mm-hmm. ñëw ñu jàpp ne day toog ci njabootam pare nañ ci moom ñu jëlaat ko yóbbu waaye yóbbu ko sëñ bi da ci am xel mu dal lool ndax sëñ bi dañu ko këf jigéen ay ati at mënuloo ko dara genn guddi du tax nga am ca ndam moom gànnaar dafa ne genn guddi la ko jàppe gànnaar nag di réewum xam-xam di réew moom man di itam ak nit yàlla mag ñëpp tudde ko am bu saalihiina mooy gaa yu baax yi boroomi cër itam nekk ñu jàpp ni buñ fa yóbboo sëñ bi ak melokaanam yi mu mel dana tax nit ñu ñuul ñi wan ko gannaaw dëgmal naari mhm. sëñ bi nekk fa aku njabootam mhm. waaye la ci gën a yéeme rek mooy sëñ bi la leen waxoon ni leen gànnaar ku mokkalut alxuraan mënut liggéeyub góor ba ma fekk sëñ mat loo dagana looloo ko bàyyi woon dagana ci sëñ bi la fa nekk woon ku ñëw te war a jàll mu bàyyi nga jàll ku ñëw te waroo jàll mu dëpp la nga dellu mhm. moo tax sëñ mat loo dagana waaye cosaanam kajoor la kokki la bokk foofu ci gànnaar nag sëñ Moussa ñoom foofu la leen sëñ bi tarbiya mook sëñ Fallu ñoom foofu lañ doon morito moo tax sëñ Moussa Ka ne Bamba nga leen tarbiya fii Sarsara ak jarraariya ni waa Lansaar mooy sëñ bi defu leen woon ay noobu li mu bëggaloon gaay yu baax yi nga xamante ni ñoo laxasaa yu jox seen bopp mm. loolu la bëggaloon njaboot ji day wax ni sëñ Tuubaa rek moo defar doomam defar doomi jàmbur keneen ci gaay yi koo ci gis lam baax lay doomam la ko denc waaye sëñ Tuubaa rek moo defar doomu defar doomi jàmbur. defar nga ay ah. defar nga nit defar say jàmbur. defar say bokk defar aw jàmbur. defar aw jàmbur waaw. Ah, benn defarin wi la. boo demee que sëñ Cheikh jëmbal fi noonu nañu defal sëñ Muntaxaa rek lañ koy defal. kuñ woo nga ne faal lu ñu am jox ko lu ñu jur di déglu ndigal bu ñëwee ci sëñ Muntaxaa nag moom doonu tey waaye bu delluwaatee fee tërub sëñ Tuubaa fan yaa defar say bokk ban jak nga defar aw jaambur ban jak nga tee sa njàmbur seen doog sëriñ buur ak mbokk ak jaambur ñëpp jak <laughs> kon mu <laughs> foofu ci gànnaar nag mhm. situation boobu lañ fa nekk woon dañoo boole woon jàng ak liggéey mhm. ndax maam Thierno pare woon nag ñoom ak sëñ Mor Jaara seen alxuraan rafet na waaye da ci am ci xeeti xam-xam yoo xamante ni booba tasaaroo gut mhm. naar yi suñu borom teel na leen cee dimbali te sëñ bi dafa bëgg xam-xam mhm. ñu koy jàng si mhm. naar yi di leen di leen di leen jàng ci sëñ bi itam bu bu amee jot gu mu féexee da leen di tëralal wax nañ ni am na boo xam ne sëñ bi daa wut lu ay téere yu baree bare sëñ Moroog sëñ Fall mu fat leen ci xayma ni leen téere yi dama bëgg li tàmbalee ci lafu ndijoor ba ci xët ci mujj ci càmmoñ bi araf wu ci nekk na ci seen bët bi tege gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtte moom maa ko war na hmm. moo tax seen dimension xam-xam kenn xamul fu mu toll wax na dëgg sori la ci biir tey dañ koo boole woon ak liggéey ndax sëñ bi dañ leen woon dama bëggul ngeen ñëw fii ci gànnaar ci mar wi ak xiif yeeg tumuranke bi hmm. ba pare ñibbi yam ak ñoom ngeen fa bàyyi woon ñu leen defal naa leen fii ab tokkoor boo xamante ni dama bëgg bu ngeen xëyatee ngeen xëy benn bis bu ngeen fa xëy danaa leen ko defal ayu bés loolu ñoom am nañ ko seen waaye gànnaar nag doon doon barab boo xam ne dafa tar ndax xiif lu lekk daanaka amut ndox koddaay la tax koo deme noonu tey tàng ndax deseer la waaye teewul nag ñoom ñu dër ndax dañu wax ni am na fa jëmmi jamono joo xamante ne nii kër Sëñ Tuubaa benn saakum njaxnaat bu xonq mu pepp mu xonq mi moo fa nekk su sëñ bi xëyee ba digg bëccëg tisbaar di bëgg a jot lay génn ku ne ñu ngëpp ci ngëbu pepp jox la kubéeru mhm. sat la ndox duñ ju xorom nga yéey di boole di di bala nga ko amaat waxtu wa daa dil siwaat te taxul mag ñi dellu gannaaw taxul ñu deng deng bis bu set seen pas-pas seen yitte day gën di dëgër sëñ bi itam di mottale la waroon di jëfandikoo muy xiif ku mottale ay waxtaan ba xiif bi duñ ko yëg mhm. foofa liggéey bu ne liggéey nañ ko fa façon liggéey bu ne liggéey nañ ko fa nga xamante ne nii ñu wax menn menn mag moo xamante ne nii xam naa dafa xëy xiif bi xaw a xaw kii mu leen tey day ku fexe ba ma regg danaa faj sa aajo kon regg jafe woon na fa ma ne mag ni ko tey moom regg faj aaju jafewu fi regg a fi jafe mm-hmm. waaye faj aaju jafewu fi regg a fi jafe mm-hmm. dooyu yoo xamante ne gànnaar la xewee mm-hmm. mag ñi itam liggéey bi ñu liggéey amul daanaka dallu 24 sur 24. xidma rek xidma rek lu dul farata yi leen suñu borom teg ci xidma li ñu yëngu. Mhm. defaral nañ fi tubaab yi ab ab curi boo xam ne tubaab yi ñoo ñëw sàkk ko sëñ bi bëgg ñu defaral leen ab curi si Moussa ak suñ Fall moom bokk nañ ci ña doon gori bant ya ak jiwuti ñax muñ ko defal muy am mbaar moo xam ne tubaab yi dañ ci yeew seen fas yi <laughs> loolu lépp mu jëm jublu ci dara rek lu dul tàggatal leen seeni cër bañ nangoo liggéey waaye mu defaral leen seenu xol ba seen yitte kawe seen dikk ak seen borom nga xam ne am na ci jamono yoo xamante ni nii sëñ bi bëggoon na sax ñu del siwaat xam naa yërëm na leen waaye dañoo réer ci biir xayma yi ba ñu waroon a booleel dem door a feeñ yéen sëñ bi laajee ni leen fu ngeen ne woon dañ ko ni ko dañ la mënatu la woon gannaaw te mënatuñoo ne foo néew. walaay walaay kenn du ko xam di ko wan gannaaw. mënatuñ laa wan gannaaw. te li muy dund rek la ànd ak ñoom di ko dund mun leen foogoon naa ko foogam boobee ñu nga xamante ne ni itam am na boo xamante ni daf ne na daf ne nañ ko dajaleel gone yi fa nekk yëpp mu xotti leen di may luus waajal leen ñu dellu ci Sénégal xaar ko waaye ñoom itam dañoo dañoo tàqatoowaat jël seen kàddu jox suñu Moussa ni moo daal moom daal nanu dimbali li muy daj fi ñu bokk ak moom di ko daj waaye moom bëggatuñoo tàggoo moom. ba nga xamante ni nii état bu gànnaar bi jeex na sëñ bi ànd ak ñoom. ñëw jolof ñëw jolof. jolof gën a tar ndax jolof dafa sori ceen dafa sori. Mm, tubaab yi xam nañ ni dafa sori. Mm. amutu yoon gànnoos na tàngooroo bari na fa ndox bariwul ñu yóbbu fa sëñ bi parce que jàpp nañu bu fa sëñ bi demee nit ñi danañ découragé ci soriwaay bi ba duñ dem sëñ bi yóbbaale fa njabootam googu sëñ bi moo wax ni xiif ba rasulullah sallallahu alayhi wa doon daj mook saxaabaam ya bay wut ay doj di takk kaalaam di ko roof ci fii ndax mën a siggi sëñ Tuubaa nee daj naa xiif bu ko raw maak saan njaboot ci ceen jëlof waaye taxut menn mag découragé wala mu rocc mag ñi amatuñoon jënn yitte judul fekk sëñ bi jëlof nga xamante ni boo bëggee dem Jolof da ngay dem ci commandant de cercle bi nga nekkal léegi ñaan autorisation visa pour dem Jolof mhm. bu boobaa itam da ngay présenté këyit yi nga fay imp dangay ngay présenté li ngay yóbbu lépp ñu bind ko wax ñaata fan nga fay am door la bàyyi nga dem léegi la tubaab yi dugal ci caay-caay wut ay mhm. addu kalpe ñu dogale leen ca yoon wa xeex ak ñoom nangu seen yóbbal caay-caay gu ne def nañ leen ko waaye teewul mag ñi di yàlla di dem ko ñëw pour ñu nekkee Thiel Jolof su mhm. tënk rek ngir njëkkante ak waxtu bi xam naa lu ci bari dootu jar mhm. data yu bari yi mhm. fa lañ àggale seenu tërbiya waaye bind alxuraan lañ fa daan nekke takk ay néeg ak sàkket ak bay ca tool ya foofu itam sëñ Maodo jël na fay responsabilité yu bari fi dox diggante sëñ bi ak njaboot gi ci mhm. yenn yi ñuy soxla mu tegoo ko mhm. ci atam yu néew foofu tam la leen sëñ bi sampale kër foofu la sëñ bi yónnee ci njabootuk sëñ daam abdourahman muy amintaloo moomee ak assuloo ak soxna faatiloo ñoom ñett da yónnee indi leen soxna faati ma ca mu jox ko sëñ amar fall mbàkke moom sëñ ibrahima mbàkke kajoor moo doon waajuru sëñ Cheikh Fati ak sëñ Abdou Khoudous ñuy nekkoon doon xalifa Mbacke Kajoor mm-hmm. soxna Aminta Lo mu jox ko sëñ Mour Moustapha mu am soxna Mariam ak sëñ Mbacke Madina soxna Asula mu jox ko sëñ Fallou mu am soxna Mbène Fallou ak soxna Sada soxna Mbène moom yi ak soxna Mariam ñoo ñooñu ceen jolof lañ gane àdduna mm-hmm. ñoo ak soxna May Kabir ñoo bokk benn këll taral bu leen sëñ bi boole mm-hmm. foofu lañ ginnaaw boo xamante ne nii nekk nañ fa noonu nag ci ay liggéey ay bind kaamil ak dem di gori kayit foofu la si muusa doon wax ne lépp lu fi waay liggéey ba seex ba nga koy liggéey maa yow ko ànd ma leen nag njureel dem ci néeg yi néeg bu fi waaye takk takk naa ko takk naa ko gën nañ dem ci sàq ya sàq mu ko waaye indi indi naa fi ko nañ dem ci curi ba fas wu ko waaye indi indi naa fas wu gën nañ dem ci kaamil ya kenn dàqu ma bind kenn gënu ma rafetlu te kenn ëpp ma kaamil yi ma bind yooyu ay ay taxawaay la yoo xamante ne ni doomam yooyu yi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom ci njëlbeen foofu loolu lañ nekkoon foofu sëñ Fallou daf daan wax ni damaa teel a xëy ci tool bi ba pare rek guddee wàcc <laughs> mooy sëñ bi ci njëlbeen rek ànd ak bi ba pare nag des ci gannaawam mooy fan wu gudd oo xamante ni ni fa tabaarakala lépp ci biir sëñ la ko jeexal bi nga xamante ne ni sëñ baa ngi jógee ceen jolof nag dem mm-hmm. njaboot gi ñooñu ànd ak moom dem njaareem biñ demee njaareem nag la digal njabootam gu mag goog yi ni leen léegi nañu dem Touba. demee Touba ci 1912 mu xamal ni leen foofay dëkk ba waaye dama bëgg ngeen wàcce ko fa te dem wuti barab boole fa jaamu yàlla ak liggéey su sama jumaa ji pare ngeen fa jógee di ju di julli si ajjuma bi leen sëñ bi di wax loolu sëñ Moussa wax ko ni ko lool sëñ fa sëñ Tuubaa doon leen ku ci mën a am sa barabu bopp baax na ku ci mënta am barab te ñaar mën a bokk barab barabu liggéeyukaay nañ ko wut sëñ Moussa ni ko sëñ Fallu de moom am na ci tawféex ndax foofu yi ci ndindi nañ ko fa suuf soo xamee ma nga fa di bay loolu tax sëñ Fallu ni baatum ndindi boobu yi ginnaaw dugg na ci baatu nopp sëñ du ko soppi ndindi ab waaw ndindi ab mooy dégg ci sax loolu lay wax baat bi dul sëñ Moussa sañ ci usnu muy Tindodi. muy waaw mooy Ousmane sëñ Oto Masamba sañ ci Daarul Karim sëñ Mor Roqi sañ ci Daarul Xaddim. 14 mm-hmm. sëñ Masamba Kandi Bousso. waaw. Mm-hmm. sëñ sëñ Mor Roqi waaw. waaw sëñ Masamba ñooñu ñooñu ñoo sañ ci. Mm-hmm. sëñ ci 14 daanaka boobu 25 cinq la ñu am. ñoom bi ñuy sañ ci seeni dëkk 25 ans la ñu am. ñaar fukk ak juróom sañ ci ab dëkk fi mu toll nii gone yi ci mën am ñaar fukki at juróom mën am pant bu baax. yóbbu eh, fukki a ba léegi baroon ba jamono fi mu nii bu ñu woon nii ñi nga xam ne seen kër bàyyi lañ nekk na bu fa kenn delluwaat dana ci bari ñoo xam bu ñu leen fotut bi biti la fanaan te passé nañ juróom ñaar fukki at fi mu seen kër bàyyi lañ dëkk. te lépp yitte rek yitte dong la ñoom ci seen ñaar fukki at juróom ci lañ sañ ay dëkk. tàmbali di di liggéey ci dëkk ba di yóbbu sëñ Tuubaa di liggéey ci dëkk ba di yóbbu sëñ Tuubaa. sëñ Modou loolu la nekkee ba gisatul. loolu la nekkee woon ba gisatul sëñ bi. jàng ak jàngale ak jaamu yàlla. ak liggéey di yóbbu. waaye li sëñ Moussa doon dugg léegi gannaaw sëñ bi taxawaayam ba yóbbu sëñ bi Tuubaa. waaw kay lu bari na ci xew dégg la. léegi nag sëñ bi moom. 1995 hmm. bi mu duggee ci loxoy tubaab bi ba 1927. Hmm. jaara tànkam jaaraatu suufu Tuubaa. Hmm. Touba juróom-ñaari at kat la fi dëkk. Mhm. dem tubaab yi jéem nañ ba tële. Mhm. pexe mi mujje mooy mooy xam nañu fu ko def fa la adduna ndax sëñ bi bi mu fiy nekk fu mu nekk foofay capital mouridisme bi mu nekkee tukki ba ca Gabon donte nit ñi mënuñu faa demee seen xel yëpp nga foofu mhm. bi mu ñibbisee ci réew mi fu ñu ko dégg daw wuti foofu bi mu demee gànnaar dañoo dàppoon ni gànnaar ak Sénégal danañ jaxasoo dana doon benn ndax mag ñëpp tubaab bi ko wuti gànnaar bu ñu demee Thiel Jolof mooy ñu amatuñ soxla kenn fu dul Thiel Jolof bi mu ñëwee njaarim kenn amatul jenn yitte ju dul njaarim tubaab nag lañ xam ni kii moom fu ko yóbbu foofu la adduna di wax ñu teg ko bët di ko bàyyi xel. bis nañ sëñ Moussa ba mu ñëw ñu wax ko ko dañoo bëgg bu sëñ bi bàyyi ko nangam ñu na ko ñu yóbbu ko fu lu neex def ko sëñ Modou ba mu ñëwee ko luñ la wax. nit koy xoole nga naa ko dañ ne boo génnee àdduna nag sëñ Modou taxut mu mu jaar ca saraaxan waaye sëñ bi dañu ko Mouhamadul Moustapha mu ne ko Mbàkke mu ko bu bés baa Tuubaa la moom ba yoon it ko Mouhamadul Moustapha bu bu ngeen liggéentee ba dem ma Tuubaa dañu dem daana mel ni demaluma leen woon fenn su ma demee Tuubaa nag lu ngeen tàmbalee danaa ko àggal liggéey bi li ci des dem Tuubaa la moo tax sëñ bi bind na itam ne akramani rabbi bi la xuruji jismi min watani li nafa ahlil muduni suñ borom terale na ma sama yaram des sama biir dëkk di su ko génn di ko yóbbu ngir terale ko ñeneen hmm. kon sëñ bi xamoon na ne tubaab yi ñu ngi fexe moo tax mu waxoon si Moussa na ni ko su tamxarit wi dëgëree foo ne na nga ñëw seet sama soxla mel hmm. nga yàgg na ko waajal boobu yi nag ci mujjëm googu yi ci 1927 ca tamxarit aussi mu la sanc ay dëkk noonu mu ma nga doon wax mooy bi mu sancee tindoo di sanc nayde sanc guy fukki sër a sanc Touba Kayam kon sanc na ay ñeenti dëkk ci nekkug sëñ bi ëpp na ko ndax sañc na xusnu maab sanc nayde sanc fële këllal dégg astaxfurlaa Touba Touba Kayam da daaru ñaaxeen yooyu yëpp ci jamono sëñ bi lépp ci ci ak ci ak ci nekkul sëñ bi xabaan woon na fa dafa amoon na fay tool mhm. yooyu ci nekkul sëñ bi la mhm. waaye bi nga xamante ni nii foofa la ko fekk dañu wax ni dimaas ñu toog nii suba teel di waxtaan ak mag ñi noonu yàgg mu ni tekk waxatul kenn yàgg mu ji piliyaan bi dem ci tokkooru ñam bi bi nekk foofu taxaw ca rat ga ca keru yoor yoor ga yooyu yëkkati loxo yi nii la ko def ràbbale ko nii ba dóor ko ci gannaaw delloo siwaat ko sëñ moor Jànda mi nga xam ne mooy waajur maam soxna loo jëm mi jur sëñ Mbàkke Muhammad moo topp ci moom mu ni ko Mor de damaa jaaxle mu ni ko ah, yow la war a jaaxal mu doon mu ko foofu ma toogoon ci yéen bi di wax ak yéen am na ci lu wax ak man te lu ma mos a wax dëgg la nee na ba ma amee ñeent fukki at jotuma am kilifa sëñ Mbàkke loolu na te fii ma taxaw di yow maa ngi sama ñeent fukki at tegal ay bés daal di dellusiwaat ni ko baax na dellusiwaat yeewi njaboot gi ni leen léegi na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te mooy tëndiku lépp lu ñu leen di tere damay dem wetu Tuuba waaye danaa fi dellusiwaat procédure bu gàtt la waaye bu gudd gudd la waaye bi mu déparé foofu daa ñëw Touba bi mu ñëwee tuubaa dafa dugg këram rek génnaat dem Osnumaab bi mu demee Osnumaab itam daa dugg biir néegam xëy na am na mu jël génnaat taal otoom wuti daaru ñaaxee kelloon la jaar ci kër Amadou Mokhara ji mm-hmm. laaj Amadou Mokhara ji ñu ne ko daa dem tool mu bind bataaxel bàyyi fa ne leen su ma wàññi ko danaa fi jaar continuer jaar daalul moxti fala taseeg see Ablaye Diop lew na daat koy wax ni ko damaa bëggoon nga gunge ma wetu ñaaxeen daa am yitte ñu fay doxi su fekkee sa oto man naa dem sëñ Ablaye ne ko oto mën naa dem ñu jiitlante dem ñaaxeen sëñ bi wax na ni sëñ Moussa nee na la waxoon ak moom Touba Kayel waxaat na ak moom ci biir oto bi ni ko wëlbatikul uti njëriñ mu dem ñaaxeen fanaan fa sëñ si la ni ko léegi tool àll bi woote woon naa ko te dama koy woote bu ko defee ginnaaw yaa ngi fi dana tax nit ñi sawar ci ñëw mu ni ko loo ci jublu mu ne ko bu la fi nit ñi déggee boo ko wootee day gaaw mu ni kon nañ ko def ci altine ji ndax damaa ne ci yitte mooy du xaar àllarba ji altine ji lay xat boobu altine la ñuy def ñu woote ko bañ liggéeyee ba ba liggéey ba sotti mu dem ca tool ya sant leen yeewi leen waaye nag dañuy leen bu ñëwee ci kër gi kees gi mu nekk bu ci kenn dugg na ñëpp des ci penc mi te man ci jàng alxuraan jàng xasida ak istixfaar salaatu ala nabi noo ko def nee na dugg ci biir sëñ mët si la ne na ma bëgg koo taaloon làmp sondeel yooyu mu ne ma jëru taal ma bëgg a delloo bunt bi mu ne ma matu ko nee na ma seen mu ah, wékki ab der laaj ci róom bi daal di kàbbar mu julli jullee farataam commencé ay naafila nee na ma boof ci bunt bi ndax kilifa gu ne ci bunt ci biirum néeg nanguwul ñu tëj bunt ba nanguwul ñu taal làmp ba tax mu boof ci biti nee ma dégg ko muy julli di sëlmal di julli di sëlmal ba mu julli lu ko soob tàmbali di jàngaar xuraan ca kaw na ma ma ma ma ma boof fajar bi jot mu ngi day jàng nee ma door a dem fëgg jigéen ñi ngir ndékki lu ñu teel ko waajal balaa naaj mais biñ ko defaree ba pare ba indi ko ma wax sëñ Abdoulaye Diop lew na ni ko waxal sëñ ni ko xéewal gi pare na mais mu ne ko xéewal gi pare na mu ne ko jox ko ab Ablaye Diop nee na bi ma ko indee may dee suñu Ablaye Diop ne ko waaw te nga ko wax mu mu dallu fii ndax réew mi xamaguñ ni mi ngi fii te coono yi bari na mais mu ne ko gees daal ne ko lu mu wax mu ne ko man de wax ne nga dallu ndax coono yi mu ni ko nañ génne bagage yi muy dem génne bagage yi la jaare noonu jaar gaawaan fekk ko maam Cheikh Anta <laughs> jaaree gaawaan kër ga boobu étage la. Mhm. Cheikh ku teel a jekk la. Mhm. ku teel a man jamonoom la ndax étage bu 1927 fekk commandant de cercle et moo paal. Mhm. ñëw seet si maam Cheikh Anta. ndax nomination bu bees la yor. bi ko maam Cheikh di gunge la taseeg sëñ Moussa bi dugg si mu nuyoog sëñ Moussa continuer gunge gunge gan gi. del si waat càmmanteeg sëñ Modou laaj ko ni ko ndax nuyoo nga ak commandant bi sëñ Modou ni ko déedéet mu ni ko ba ma xamoon ni nuyoowu leen danaa leen nuyoo ne. daan ni ko xanaa sama ngan nga ma doon dig tam jafe tey ji la ko yàlla dogal sëñ Modou ni ko damaa ne ci yitte mooy li muy yëpp te mënu ko wax wax ne ci yitte keroog maam Cheikh Anta ni ko xanaa dangaa jaafaat ne dama amutub añ mais mu ree ko ni ko ah, yow koy ku la gis xam ne am nga ko añ xanaa kay dama koy jéggal beneen maamam Cheikh jox ko fa ak baa ak saakub cere ni ko kon teraanga jàngoo ginnaaw boo yend woon danaa la defal teraanga teraanga jàngi nii saakub cere ba sëñ Mat Lamine Touré soxna Astu Gaawaan moom la ko sëñ Moussa may yóbbaale baa ba mu fa jógee ñëw njaareem bi muy ñëw njaareem tisbaar weesu na te takkusaan jotagut waaw tisbaar weesu na te takkusaan jotagut bi mu ñëwee ci kër boppam gi la dal ndax moom amoon na fa kër sëñ bi daggaloon na ko fa kër mu nekk te mooy kër gi sëñ Moussa Mohamed Yesala doon na ko ci waajur koy nekk foofu ca la ca la ca la foofu ci kër googa la dal ba mu fa dalee nag fekk na sëñ bi samedi ba mu jullijee juróomi waxtu yi jot naa tut muy xutba wam sa sin boobu samedi boobu yi la mu ci jataayoo ak mag mi wax ak ñoom dénk leen lam leen dénk mooy ca la doon jàngaloo sëñ Mat la Jóob njëlbeenu bàqara mu jàng jàngee tuuti mu ni ko taxawal ni ko ab jullit a ngoog noonu la ab di mel jàngaat mu ni ko noonu la ab yéefar di mel jàng mu ni ko noonu la ab naafiq di mel nga xam ne ku bëgg xam ba xam ñett yi boo ci doon boo demee ci ay yooyu jàng xoolaat sa bopp danga xam loo ci doon daan ni leen na ngeen bàyyi farfarlo bi te wàññi dox bi ba weesu gàmmu ku ci am farata na dem doxi ko ku ci amul farata na toog ci xam ne lii lii bokk na ci yi nga xamante ni moom la leen dénk ca booba itam la la dénkaane woote woo sëñ Ahmad Tasrif suba sëñ jëri waat mm-hmm. moom la ko ni wool ma wool ma Masamba ñu wooyewu sëñ Masamba ñëw mu ni képp ko am loo may jox te fekkoo ma bu la bu la doyee jox ko Masamba wax sëñ Moussa Jama rakki sëñ Maguey Jama moom sëñ Adama Gueye ni ko na wut gaal def ko ci penc ma ni leen ku Masamba doy te gaal gi doy la nga def ko ci gaal nee na fa maa baqiya lil arsaq fa li xayri na mooy li des ci wasa bi moom ñeel na ñeneen waaye taxul ñu xam li ñuy wax woo sëñ Afi ne ko bu julli jotee julli leen seen jàkkaango woo sëñ ma jëmb si la ni ko yéen a doon wax ni da a bëgg bu ngeen may xëyal kaamil baa nga mooy seenu tool muy daaree nga xam ni kon li mu waroon wax lépp wax na ko mhm. daal di fàttu fàttu mu fàttoo léegi dimanche samedi boobee ca timis ba mu ba mu ba mu jullee sëñ Matar si la moo ko daan taalal làmp bi sëñ Matar yëngu na bëgg a taal làmp bi sëñ bi ni ko demal bañ soxla mu dem léegi sëñ bi génnaatul waaye ba mu ñëwee gis ni la son borom doon dogal agsi na mm-hmm. booba nag la jël xam ni li taxoon suñ waa doon ko waajal mm-hmm. agsi na moo tax suñ mbay jaxate naa ko sa yam wu rëy wañ daan musloo ko daw mm-hmm. moom la yan la sëñ bi bëggoon ci fanweeri at ñett yi mu ànd ak tubaab bi keroog la ko am ndax sëñ bi diiru fanweeri at ak ñett yi mu ànd ak Touba bi tànkam ñëw Touba te ba muy sanc Touba waxoon na waccaal ilaahi maskani Touba abad mag ñi di jàng bay bi waaye xamuñu nu muy firee ndax sëñ baa ngi ci àll bi mënta dikk ñuy jàpp rek di nisar waxtu wu ci na jàpp ni dana am bis mu boobee ko bagaasam ñëw dëkk si Touba keroog ba nga xamante ni nii loolu yi xew na nga xam ne sëñ ak gëstu na ba gis ni suñu borom dikk naa ko dogalam te li ko sëñ bi waxoon rek moo fi sës dem ci commanda ba sëñ Balla Coro la woo ànd ak moom dem ci commanda et moo pal fekk ko këram da ko fekk mu wàcc fekk ko biroom këram la ko fekk xamal ko ni ko sëñ bi dafa génn àdduna at moo pal ñëw na lii doon wax at moo pal ca buntub soow ba buntub sëñ Paate Amar fa la jaare sëñ Mourou Moustapha wëri jaar ci buntu penku ngir bëggu dara xew tubaab moom buy dugg ci biir kër kenn du ko laaj foo jëm ak looy dox ndax nit ñi moom boobu dañu siiw mucc ci moom te ñoom heure bu ne dañ daan dikkal sëñ bi heure bu ne lañ daan dugg ci kër gi ndax bëgg xam ci lu mu ne ñu itam ànd naag ànd naag comme médecin nit ku juul koo xam ne moo def certificat de décès bi wan leen ñu leen kii gàdd na génn na àdduna certificat de décès boobu yi ci lañ sukkandiku tell garam gouverneur général xamal ni ko sëñ bi dafa génn waaye sëñ Moussa ba mu ko keebal sëñ Modou dañ ko ko yóbbu ci këram ji ci am na nag ñoo xam dañ naan sëñ bi da ko da koo xaalis waaye sëñ Cheikh Fatab ko ma fekkee ne na loolu xaju ko na ñoo ñu daan wax naan da ko yóbbu bandu la door ko yëgi Touba ne loolu du jom te sëñ Moussa ko ba pare sëñ bi itam juridiquement ko déplacé te tubaab bi yow parce que résidence surveillée la bu ñu ko doon déplacé ba muy dund nañ ko neen xëy ni ko ñëwal mm-hmm. ñëwoon dem parce que juridiquement xam nañ li ko fi bàyyi moom xam na li ko fi bàyyi xam nañ ab prisonnier la bu gaa yi jàpp te bëgg njabootam jàmm moo tax mu toog fa ne sëñ bi sàmm ko sàmm ñaay ko neexoon ni dañ ñu uti tubaab te kenn du ko kar kenn ko téye waaye kon mën naa ñu topp ci gannaawam mm-hmm. nda dara mën na ko cee bañ a xamante ne ni loolu am na sëñ moo da mu ñëw mm-hmm. waaw Muhammadan Tandaxi sëñ Mad Lamine Diop. Dagana sëñ Cheikh Khary Dieng Mouhamadan Tandax yi ñett ñi ñoo waajal sëñ bi wàccaay bi mu demee Touba. oto bi ko yóbbu Touba marque Dalaay la oto bi sëñ Balla oto ba mooy sëñ sëñ moo ci dugg ci doom ji mu jóg sëñ Mat Lamine Diop Dagana sëñ Cheikh Khary Dieng Mouhamadan Tandax yi sëñ Maxtaar sëñ bëgg nekk ñi ñoo ci nekkoon. ñoo jële sëriñ bi njaareem yóbbu ko Touba. sëñ Modou des njaareem. sëñ Modou des njaareem. li jëm ci mbir yi. mu desee njaareem nga xamante ne ni oto bi léegi génn na ba jël na jëm sëñ bi jëm Touba la woo sëñ Ablaye Diop lew na ni ko kaay dem Darou Mouhty soo demee nga ni bàyyi Thierno kan ne woon njaareem nee na ñu dañ daje Touba. loolu la wax noonu moom sëñ Ablaye Diop dem moom demee dañu daa fekk borom Darou Fatou. mu wax bëkk néeg bi mu ne ko fàttunu nee ma naxanteeg moom naxanteeg moom nanguwumaa dégg nee ma xam ne kii bu ma ko waxul li xew fii la may tëye ba bët set nee ma dégg ko ko mu bëgg a yuuxu sëñ Abdoulaye Diop newoon nee ma tatu fi potam jii jël sama loxo bi teg ko fii ci potox gi bës ko ba muy xoog ko xoog mu xam ne dama koy rey nee ma ni ko njaareem laa jóge lii xew kenn dégg ko boo fexee ba mu siiw da nga tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ sëriñ bi te dara du la ci mooy nag nee mu ne bàyyi ma duma def dara mais ma bàyyi ko mu yéeg permis di cëppeelu ci biir fekk maam Thierno ngi ci mbaar mi fatuwut moo ni ko sëriñ lu mu doon moo ni ko sëñ Moussa fi yónne mu ni ko na ñëw mu ñëwee mu ni ko sëñ bi nee woon jaareem nee na ngeen daje Tuuba nee na diggante boobu maam Thierno nee na fi tekk loo xamante ni mën ngaa ñulugub laax ba mu baax ba nga laax ko fi te waxut dara cey borom daru day ni tekk rek boobu sëñ ne tekk koon yàgg la ni la ni sëñ Abdoulaye Diop kon day xanaa dañuy jaari jaareem nee na sëñ ko sëñ mu de Touba la ma wax nee na maam Thierno ne ko batale daa forte sëñ bi nee woon na ma ba ma des njëriñ mu ne ko sëñ bi yóbbu na yóbbu na ko Touba mu door a ñëw sëñ Basiiru bi mu ñëwee la la door a sàkk ay ndaw ñu wooyi mag ñi hmm. fekk na fekk sëñ Abbas Bousso doon hmm. sëñ Bàkki Bousso ak sëñ Cheikh Diouf rak sëñ Bàkki Diouf dem ci Assane Yattin luwee foofu oto trois cent franc topp topp si ñuy Tuuba ak Cheikh Diouf Mame jee ak sëñ Abdourahmane Touré doom yi sëñ Cheikh sëñ Aliou Touré ñoom ñoo jël oto ba ñoo luwee oto ba loolu tax naar bi jàpp ne oto ma indi sëñ hmm. parce que kon kër ga ñoo yëg information bi dem luwee oto ba trois cent topp si kii bi ñu dugg tu bi ñu passé ndool lañu la ñuy dab oto bi ànd ak moom bi ñu dikkee course yi ñu fi doon dox ñoom lañ ko doon yónni ñoo wooyi sëñ Fallou Ndindi ñoo wooy si ñoo nekkoon ndaw ñi doon dox course yi nga xam ne mënuñ ci woon a ñàkk ñoom lañ yónni gerte nindi ñu wooy suñ Fallu ñoo dem gade ñu wooy suñ Bàkki Busa ñoo wooy suñ Daam Abdourahmane ñoo suñ Mandumbe mag ñu war a fekk ñëpp fekk jataay tubaab yi nag bi loolu amee tubaab yi dañoo indi ay soldaar ñu cercle kër kër gu mag bu xëy dañ ko centré. waaw sëñ Modou Sarr synthèse ñu ñu def ak tubaab yi. wax tubaab yi daf. ok bi ñu ko centré léegi mooy information bi mën a gudd siiw. Mhm. parce que waa kër gi mënuñoo génn. Mhm. te ñi ci biti itam ñi ñëwuñoo dugg si ndax xamuñu tubaab yi lu xew mhm. ñu naan xëy na tubaab yi dañoo dikkalaat sëñ bi bi ñu nga xamante ni mag ñi jógee nañ tubaa ci yoor yoor bi ba ñëw la maam Cerno woolu soxna fa tàkk mi nga xamante ni ni mooy maami Cheikh Mouhamadul Mourtala wax ko ni ko na wax jigéen ñi ñu waaj ndax sëñ bi dem na tubaa moo ne ko xanaa tubaab yee ko yóbbooti mu ne ko déedéet boroomam moo ko woo boobu la information bi commencé. sëñ moo saa ci am mat gan ak at mi foofee barab boobee sëñ bi toogoon nag foofee la toog responsabilité bi yoon wi nekk ci loxoom. mu xam ni léegi liggéey bi nga xamante ne ni moom la sëñ bi tàmbali woon continuité bi ci loxoom la nekk te lu ca mat a wax lépp sëñ bi waxoon na ko moom. waxoon na ko ci lu bare bare waaye sëñ bi nag bàyyiwu fi officiellement yoo xam ne dañu bu ma demee nañ samp Modou Moustapha mu doon sama kóotaay sama gannaaw waaye teewul nag ci lislaam xamoon nañ ni doom mooy doon nu bàyyi ba mm-hmm. alwala bi sirru abihi te it mag xam nañ moom ay jikko ak ay qualité yoo xamante ne nii mosuñu koo xeet ba ñu ndaw ba yi mu amee ñeent fukki at toog jataayu sëñ bi waaye gannaaw sëñ bi nag sëñ Modou Moustapha taxaw jumaa ji ko bi jox moom ak raaj bi gannaaw sëñ bi nag ok waxtu wi dab nañu mm-hmm. gannaaw sëñ bi sëñ bi ci boppam ci ak nekkam la santaane woon jumaa ji 1925 mm-hmm. mm-hmm. la woolu boroom daaru woo sëñ Mourou Sa woo maam Cheikh Anta woo sëñ Massamba xamal leen ni leen ni liggéey bi jumaa jee ci des sama kaaba ga ca Touba sax la wax ni moo ci des ci liggéey bi ma bëgg ngeen taxaw ci te def ci seen jëpp yitt daat daat ni leen damaa bëgg nag ngeen ngeen jublu ci borom daru ni leen kii lu wax yàlla ko wax loo wax mën naa ne commencé di daje ñu ni jumaa ji mu wax ci dimension bi mu ko bëggee faw tubaab yi doon ci dara léegi monsieur laal chambre de commerce bu Kaolack la ne woon da doon wëllëre maam Thierno lu bare bari su ko maam Thierno doon toppatoo moom la ko toppatoo moom la ko wax mu ni ko ah loolu de ñu dem Dakar wutal leen ay ay ingénieur rek ñooñu ko ko defee ñu mën koo ñëw ci la tëlër yi engagé nga xamante ni ab commandant de cercle bu Thiès la ba retraité ba pare xamul dara ci wàllu maçonnerie waaye xam na mori ci seenu xër ak seenu bëgg ak seenu nangu mu engagé liggéey ànd ak Arthur Bérard Arthur Bérard ab euh, trésor bu Mbàkke la ne woon moom itam dafa retraité moo tëral li ñoo lëkkaloo engagé kii bi léegi ñu waxoon sëñ bi ni ko léegi jumaa ji mënu ko engage engagé te amoo compte banque faaw léegi nga am autorisation parce que suuf si moomoo ko te buñ ko tabaxee te amoo autorisation beneen boobu bu fi ne te leen mën na koo toj faaw nga am compte banque ndax tubaab xamut tool bu ñuy bay te ñoragut xamut aw nag mu ñuy indi li mu xam mooy da ngay am compte verser ci dara ñu tàmbali liggéey bu jeexee ñu arrêté boo dajale waatee ñu tàmbali sëñ bi binduloo sëñ bàkk bu si ab demande ndax sëñ bi moom dañu woon tubaab bi moom duñ xam sama bëgg waxoon na itam ni am na loo xamante ni su ma leen ko nanguloon dañ ko liggéey ba jox ma ci ab yi binduloo sëñ bàkk bu si ab ñu autorisé ko mu ubbi lu laaj xaalis ñaar fukki junne maam Thierno indi woon ca at ma ca gannaaw sëñ bi dénkoon ko soxna suñu wax awasaar moom la sëñ bi laajlu soxna awasaar soxna awasaar ci bëkk niir yu jigéen ñi nekkoon ci biir kër ga ca la bokk li daan jëm ci wàllu togg ak yooyu ca magasin ba ko yoroon soxna awasaar moom yi moo ko yoroon ku ñuy wax ñu xom juuf moo doon borom këram moom la sëñ bi woolu laaj ko xaalis boobu bi mu ko dénkoon te maam Thierno indi ko muy ñaar fukki junni ak juróom-ñett sëñ bi ni leen képp koo xamante ni ci man nga aju na nga joxe ñaar ak juróom-ñett ku ko mënta joxe ku yor sa kilifteef la ko joxe ni leen képp ku ko joxe mooy sa njot sawar cey kooku maam ne ko ndax mën naa yaatu sëñ bi ni ko ba kili kor mën na faa dem maam fu fu fu ngeen yéen a jàmm mën na faa dem ne leen am compte bu cay bañ a bokk mooy ñoo waa Touba su fekkoon am na ñoo xam ne waruñu caa bokk ci joxe gi waa Touba la ndax ñoo ma dëkk ca dëkk bi sama dëkk bi ca lañ dajale cinq millions def ko ci compte banque BAO banque occidentale. boobu sëñ baa ngi fi boobu sëñ baa jamono sëñ bi. mooy tegu xeer wu njëkk la. laay wax de. waaw bañ demee ci ñaar fukki fan ak juróom yi ca euh, safar ja ca la maam Thierno ñëw Touba ñu xiblaal jumaa ji ci diggante jullikaayu ayib bi. daaray kaamil bi jàpp barabu sëñ Isaa Jenn bi foofu lañ xiblaaloon jumaa ji foofu la maam Ceerno tegoon xeer wi foofu lañ commencé woon gas fondation ba ciment bu njëkk bañ fa defoon la fa tëlal doon liggéey foofu la ko commencé doon liggéey bi loolu amee nag léegi tëlër yi dugal ay njuuñ jaaj ci xaalis bi lekk na ci 5 pour cent muy 1 million 500 yoo xamante ni dañu ay àqamate bu ko kenn laaj maam lu mu ci def maam ay déplacement mag mm-hmm. ay ay recherche yu muy def ak liggéey technique yooyu yu muy def ak mm-hmm. xool ndox meeg xool suuf seeg dem ak mm-hmm. dikk bi yooyu moom moom moom la ci génne ñu xam ne lii ay njublang la te lii mu doon rëddal itam bokkut ak ni ñu jàngate wax si léegi itam ak seex si itam ñàkk a mane gi te buñ leen boolee ci barab ndax ñëpp la suñ beebal ne leen nañ dem Tuuba nga xam ne guddi gàmmu day sës ca safar jooju gàmm googu ci sës lañ commencé yanu xeer yi ndokk di ko indi Touba xeer yooyu itam tubaab bi da waxoon ni leen ni xeer yi njàpp ni mooy liggéey jumaa ji moom amut léegi il faut dañ koy transporter Dakar di ko indi Njaaréem bu ko defee ñu yanu ko yóbbu ko Njaaréem Touba <laughs> léegi am benn taalibe sëñ daam Abdourahmane ba sant Sam boo xam ne foofu ci ndokk gisoon na xeer yi këll yooyu ak saxaw yi mu wax ko maam Thierno maam Thierno woolu sëñ Fallu mu ñëw mu ni kon dafa am xeer yu ñuy wax foofu bëggoon nga seeti ko sëñ Fallu moo takk aw fasam ànd ak sëñ Mandiaye bint ak ñeneen ci ay fere ñu wan ko xeer mu yor aw ab bantam di àkkati di àkkati ëmb ko ci kaalaam andi ko jox ko borom darul moo yi mu wan ko tubaab yi ñu ni ko xeer yi bu amee du jaar ñuy dem Ndakaaru xeer yi mën naa def li ngeen def loo tax suñ Fallu ñu xeer yu jëkk ya maanaam ndax neen sama ëmb xeer boobee fa ma ko sotti wa neen xeer bu ñëwaat fa ko fet <laughs> waaw wa neen bu ñëw fa ko fet <laughs> léegi nag ñu coow daal tey daal tey daal tey daal tey juddoo ci diggante bi léegi tubaab bi daal di suspendre autorisation bi le 4 avril 1927. Mhm. lañ suspendre bi ñu mayoon sëñ bi xamal ko liggéey jumaa ji dañ koo suspendre ba yeneen jëmmi jamono mën a tourné. ginnaaw bañ demee ba ci 19 juillet sëñ bi dem. Mhm. nga yegg bi dem na suspendre nañ autorisation jumaa ji léegi. tubaab bi déplacement yi ñu ci doon fere yi ñu ci doon def léegi nee na il dañ koy dédommage léegi nag ku amee bor koo fi bàyyi yoo koy topp moo tax mu attaque sëñ Mourou Moussa. attaqué ko waaw attaqué ko porte plainte léegi dañ koy dédommage dañ koy jox xaalis parce que yaakaaroon na ci doon sonn te liggéey bi arrêté nañ ko léegi da ciy investir woon di dem ak sëñ Mourou tribunal ñu dem tribunal France Tallari gagné projet ba ñu defar rappel indiwaat ko Kaolack léegi ñu ñu ñu ñu ñu alamaan sëñ Moussa sëñ nag ne leen su fekkee da ngeen may daan da ngeen ma koy wax. su ma ngóor France di daan na ma ko wax ni leen nag li ñuy tax góor daan dër ni leen ne mbir man di doon su ma ci dëree sama benn tànk bii nguurug France gépp bu ñu àndee mënuñu koo yëngal te lii sama ñaari tànk laa ci dër te ki ma daan far far na ma léegi nag ginnaaw sëñ bi dem na léegi projet jumaa ji ñenn ñi seen xalaat mooy mënatula ne ndax sëñ bi dem mhm. moom nag sëñ bi waxoon na ni ko sama loxo damm na ci nekk sa loxo damm sëñ musaa nee na maa toog ci barab moom sëñ Touba yàlla képp di seenu ñetteel sëñ bi xamal ma ni ma jumaa ji sama loxo damm na ci nag sa loxo damm nee na keroog la ma sëñ Touba wax ne ma Mouhamadul Moustapha muy ko Mbàkke muy ko lépp luy tax jumaa ji am am nga ci ndigal lu weesu bu ci waxatee ak man nee na keroog la ma defal sama xel muy sama ndigal. sama xel muy sama ndigal muy sama ndigal lu mu xalaat rek dëppoon ak bëggu sëñ bi. nee na keroog la ma sëñ Tuubaa wax ne ma isa ay xasar kaxu roobul ayda fa nabbih la amiran sama noonu Amir ab général la woon bu boo xamante ne ni ab buuram a ko doon tàgg ab buuram moo doon tagg général bu tudd Amir naan boo tëddee ba guddi say noon yee la nga dégg bruit bi ñu ñëw nee na neel pëkk pëkk général bi ñuy wax Amir ba mu dégg bruit bi nga dem tëddi <laughs> te xam ne li ci war Amir dana ko def nee na la ma suñ tubaab ni ma yoway sama ma Amir <laughs> léegi nag nga xamante ne ni loolu am na <laughs> léegi defaraat beneen projet rek moo fi def. sëñ Moussa ñaanaat autorisation. waaw léegi nag ñaanaat beneen autorisation léegi tubaab yi xam ni léegi kii li muy li muy def léegi volonté la ci am. parce que suñu waxee rek autorisation la daje nañ fi ay yoon ci bokk ñu ne ci tumaat yi actuellement mënta ne nañ ko suspendre parce que suñ bi 5 millions bi suñ bàyyoon xaalis bi suñ bàyyoon jëlaat nañ 2 millions dolli ko ci. laata laata ñuy yéwénal sëñ bi gannaawam di ko miraas ak yooyu alal ji mu fi bàyyi woon jëlaat nañ deux millions li war ko ci xaalisu projet jumaa ji door a séddale la ci des mhm. léegi nag nga xamee sëñ moo daal bindaat autorisation demandé waat léegi pour ñu ñu libéré ko mu tabax jumaa mhm. léegi tubaab yi d'accorduñ ci parce que xam nañ jumaa li muy si mhm. lan lay symboliser ci la rek tubaabu sëñ tubaab lay wane léegi nag tubaab yi ni nañ ko may jumaa ba pare xañ ko ñu ni léegi parce que amal nañu njëriñ mm-hmm. parce que xam nañu ab liggéeykat la fu ñu fi gis suuf su baax bu ñu ko waxee léegi mu toj suuf sa yebal fa nit ñuy bay mm-hmm. te gerte gi tubaab yee koy jënd ci tubaab yi bëgg nañ ko mm-hmm. bu ñu andi aw jiw wuñ war a multiplier moom lañu koy jox mu bay ko loolu lépp tax nañu seq ak moom jàmm te sëñ bi da ko waxoon nag ni ko tubaab tubaab xaalis moom gëmuñu dara xaalis lañ doon xaalis mais loolu la ko wax ne ko tubaab tubaab Paris. Mhm. léegi ñu may ko autorisation bi. bi ñu ko mayee autorisation nag. Mhm. léegi ñu ne nañ ko ko xañ ni ñu ko koy xañ mooy dañ koy teg condition yoo xam ne du ko mën. boo ko defee day teg jumaa ji ci suuf te suñu diggante moom du yàqu. yan condition la léegi ñu ni kon léegi nag ñu woo ko ni ko léegi jumaa ji nga bëgg matériel bi koy liggéey léegi saxaar a koy indi te saxaar gi jur jur benn la yem léegi oto yi ñu am moom mënta transporter bagage bi léegi il faut nga wuti yoon saxaar sëñ Moussa léegi ni teg na projet jumaa léegi yoom saxaar la bëgg nañ ko wax léegi fan lay jaar ba mën am sax ñu ne ko léegi nguuru France dong moo ko mën a may dañuy bind ñu envoyé ko France nguur ga xool ko suñ ko càmbaree ba nangu su dikkee dana ñu liggéey ko parce ñoom ñoo amee baat bi mu bind demande jox ko Bouna Albouri ñu yóbbu ko conseil privé ñu waxtaan ci envoyé ko. Bouna Albouri maa ngi soxla Ndiaye. dañ ci waxtaanee léegi. Mhm. ñu ni daal doomi Sëriñ Bàmba ji daal li mu ñuy jii ci teraanga ak yaay amul bëgg nañ ko ko yokk waaye condition condition yi mooy tubaab yi dafa fekk booba yoonu saxaar yi ñu waroon na tër ci réew mi lépp tëral nañ ko ba pare commercialiser ko dong moo des léegi Touba Diourbel moom amuñu ci benn intérêt léegi nag ñu ni ko ouvrier yi koy liggéey yaa koy joxe seenub dund yaa koy gàtt suuf si muy jaar moomoo koo xamante ni mënta muñ yaa koy dédommage mbooloo mi ñu fi dajale ku ci yoon topp ku ci tooñ ba yoon di ko topp ci yow lañ koy àtte ndax yaa leen fi dajale. condition yooyu yëpp. juróom-ñaari at liggéey bi su jeexut loo ci defoon da ngay perte parce que dañoo am yeneen application dañoo amaat leneen lu ñuy defi. Mhm. te ouvrier yi ñu amoon moom yóbbu nañ leen Madagascar. Mhm. lii mooy condition yi ñu ko tegal. Mhm. suñ moo dund leen nangu naa mo condition yëpp nangu naa dangay ngay solo ji soldat diggante heure waxtu sàngam ba waxtu sàngam door ab am juma ma solo ji soldat ndax la jël suñu Bàmba jaral na ma ko léegi bi mu ñibbisee ci kër gi nag la daal di woote woo bokk yi mu bokkal Sëñ Tuubaa wax leen ni leen ni demoon naa ci kër commandant liggéey boobu yi ma doon toppatoo yemb na fekk na lu jiitu loolu mu titre foncier dëkk bi septembre 1928 fekk na ñu déposé euh, titre foncier 5 millions ci jamono yooyu ndax nañu ko suuf si wóoluwut ni tubaab yi seen pexe mi ñu doon pexeel sëñ bi mën nañoo xëy bis ni dañ koy jëli te tubaab yi waxtaan nañ ci loolu parce que Diourbel daa nekk en crise droit yi ñu leen di teg ak impôt yi mënatuñ ak naara libaane yi ni léegi sëñ xam nañ fu mu ne yaramam suuf du ko yàq léegi dañoo bëggoon jëli ko Touba indiwaat ko njaareem fu ko moo ko nettali sëñ Saliou Mbacke ambassadeur te nee sëñ Blaat nee na comment fekk jataay nee tubaab yi bi ñu waxee ba pare sëñ Moussa dañ leen loolu rek moo ci seen xalaat ñu ne ko waaw te sëñ Moussa dama leen du am néew ma ne du am waaye su dee am sama bakkan bi du ko fekk. sax Modou Moustapha. sëñ bi daal déetuma nangu mu randu jëm fenn. sëñ Blaat nee na keroog laa xam ne kuy lëggéeyal sëñ Tuubaa sa bakkan nga ci teg moo tax diirub lim fi ne saa yoo gisee mu la ko jàng. ci Cheikh Moussa waaw ci Cheikh Moussa la bi nga ko mayee bi. bi bi raay bi nag léegi bi mu bisee ci mbokk yi la leen wax li ko tubaab yi wax ni ko léegi yoon wi kilifa gu na indi juróom sëñ Basiru maam yi sëñ Ambe ah. Moussa déglul hmm. na na yoon wi kenn ku ne kilifa gu na indi juróom hmm. xajut ci li ngay liggéey hmm. waaye projet booba doxut ndax boobu yoon wi ñëpp bokkuñu aw gisin te jàpp nañu sëñ Moussa li mu sóobu mënu ko te boobu ñemewuñ tubaab bi moo tax ñu ni tubaab bi dana ko jàpp bëccëgum dara kàmm ci yoon saxaar wi mu sóobu keroog mm-hmm. tubaab bi di jàpp bëgg bu ko tubaab bi jàpp ñoom seen yoon du ca ne ñu tey seen bopp Cheikh Ibra Fall daal koy jox juróom-ñaar téeméeri nit juróom-ñaar téeméeri góor ci jamono jooju ci jamono jooju man année la sëñ Mandoumbe indi ñëw 28 28 waaw sëñ Mandoumbe indi téeméer sëñ am satuloo moom indi téeméer waaw kay juróom benn ci des sëñ Moussa ay dongam ak sëñ Basiru sëñ ak njaboot gi. yoon wi waaw andi juróom benn téeméer yi ci des. tubaab yi nag ne ko léegi dañ leen di bind liste leen dañ seet si liste bi ndax du n'importe qui moom lañ soxla ndax liggéey bi dafa diis ndax liggéey suuf la ak gas. daam image raay bi du amee nga may ñu ko rek. ñu xëy si. Mhm. sibiteer ku ñuy wax sibiteer Njaay moo ñëw ànd ak benn tubaab. ñu mhm. xëyee di rappel. ba jant bi soo ñu bàyyi ci suba suñu xëyaat di rappel ba ba naaj wi tàng. mu door a mat muy 1500 personnes yoo xam ne tubaab yi nee nañ 1500 personnes yi kenn ku ci nekk 300 grammes yi ceeb lay lekk. te day am yàpp day am diwlin duñ lekk cere ak laax ndax liggéey soxla dafa diis te ceeb boobu sëñ Moussa koy ne bis bi set ñeenti bërigo ak genn wàll lañ leen doon sóora. liggéeyu daal mi ngi tàmbali le 11 novembre 1928 le 11 novembre 1928 la tàmbali jeex le 31. Euh, la 14 février 1931 14 février ñaari at la ak ñeenti weer bari na morit yi daanukat yooyu wax nag naan juróom-ñaari weer waaye gas bi ba képp fukki weer ak juróom équipe yooyu tubaab bi dañ koo xaaj 1500 personnes yi dañ koo xaaj par 45 personnes 45 personnes yi dafay am ab chef d'équipe am ab tosigné am ab planto akub convoyeur akub gardien 40 yi ñoo yor pick ak bu ko defee par juróomi groupe yu ne ñu boole leen wutal leen benn surveillant group yëpp am benn surveillant général ku ñuy wax Modou Gueye accident chef la jeune la ne woon taalibe sëñ Massamba moom dafay ñëwoon mission bi mu ñëwee sëñ Massamba ni ko Modou ma nga Ndakaaru di lijjanti yoon saxaar yu dégg naa xam nga ci dara Modou Gueye l'accident moom accident chef la bi mu ñëwee ci gouverneur général bi fekk mu gisee sëñ Moussa mu summi bot yi mu soloon summi casque bi raam nuyu sëñ Moussa gouverneur ni sëñ Moussa gën na ma am ci yow confiance parce que ci li mu la defal ba ma ko santoon mu lànk te galon yi ci dënnam xam naa ko ndax sama réew la jógee dënn ma am ci yow confiance léegi tubaab yi laaj ko cinquante kilomètres la kilomètre bu ne deux cent mille muy dix millions nga xamante ni tubaab yi dañ dañ doon fay dañ doon fay koo xamante ni nii ab surveillant général juróom juróomi dërëm lañ ko doon pointé ban jour waaw surveillant simple bi ñaari dërëm lañ ko doon fay ak ak genn wàll chef d'équipe bi dërëm lay doon ak ñetti fifteen ki yor picc dërëm lañ koy jox ñooñu lañ doon def léegi bi ñu bi ñu commencé ci bi ñu commencé ci ci njaareem Baye Fall yi ñoo jiitu. waa kër Cheikh Baye Fall yi ñoo jiitu ñoo jiitu suñ jiitoo di gas di dem gars ci des topp ci ñoom suñ demee ba ñaari pax yi takkaloo Baye Fall yi rocc doxaat ba ca kanam ay kilomètre sampa gas dem ñu ci des continue buñ leen dabaatee ñu ñu dem. sëñ Basiru doxee na njaareem ba Touba ndax ab baraag lañu yor sampal ko fu raay bi toll ñu samp baraag bi mu nekk fa ak ñoom buñ ko weesoo semp samp ci kanam mu nekk fa ñoom doon doon di surveiller liggéey bi ànd ko ak ñoom njabootu suñ Touba gi di baagante di dem ak ñëw ñëw na ci liggéey bi biñ tollee kilomètre 20 ñëw na seet si liggéey bi. la ilaha illallah faal. ay raay bi nag kon. àgg na ci ñaari at ak genn ak ñaari at ak weer. ñeenti weer ak ñeenti weer. Cheikh Moustapha dakk ci lu ne yaakaar naa da ngeen am na dëkk yoo xam ni dana leen dédommage. fay leen ngir dëkk yi raay bi jaar fa. muy fay nit ñi ñuy xëy di ngoon di ko indiwaat ci guddi gi yaakaar naa. du leen fayee ñu xëy indiwaat. am na ñoo xam ne ñoom fay nañ ko yóbbu seen i kër. am ñoo xam ne dañ ko yóbbu seen i kër ngir mën a dund. loolu nit ñoo koy wax nii rek waaye man gisuma ci ñun fay ñu delluwaat. soo Moussa da doon fay xaalis fay tubaab bi la jox muy fay tubaab bay fay nga xam ne bis bu set dina fay lu toll ci maam dañuy dañuy dañuy pointé dañuy pointé waaw dañuy déparé ba kilomètre vingt lañ leen fay ndeysaan loolu Fall Major mi ci bokkoon moom moo ne dañ doon dañ doon fay. Fall Major Fall ci mag ñi nga xamante ni bi ñu bind liste bi àndoon a ci bokk ci biir liggéey ba moo doon wax ñu ngi fay doon wax sax booba li ñuy fay ñu ci mën a am ci ñoom xaalis bi nan la tolloon pour mën a évaluer waaye boo ko doon xool dëgg ne ay milliards lay doon mm-hmm. waaw te moom daa bokkoon ci biir liggéey bi bokk ci mag ñee ko ñu leen ba bi ñu koy fête 2003 yàlla fekk na mu mu nekk fii lu ci bari moo la ko doon nett li ñuy wax lépp moo la ko doon nett moo tax boo ñu gisee ci procédure tubaab yi ñu ni léegi yoonu saxaar bi fi nekk colonialiste yi ñoo ko financé mm-hmm. ñoo ci def 23 millions date bi ñu wax ñoom ne ci la seen liggéey bi tàmbali mooy le 19 mars 1931 ci lay inauguré yoonu saxaaru Touba Diourbel te gouverneur général moo ko moo ko inauguré. Cheikh Moustapha financé ah, financement di dikku ci liggéey ba. parce que ñoom Touba njaareem taltal lañ def te taltal gi nga xam moom ba léegi Abraay dama gufa te xamatuñ beneen nekk ci gannaaw Touba bu tudd taltal. ginnaaw bi mu noppee ci ah. euh, songu jumaa ji. nekk ci raay bi nag la daal songu songu jumaa nga xamante ni ñaari ñaari fan ca korige ci 1932 la daal woote rek ni leen daal liggéey sëñ Tuubaa bi laa bëgg a song gàllankoor bi ñu ma tegaloon pour nga xamante ne nii bu mënta sottiwut liggéey bi jumaa ji du sotti gàllankoor boobu teggi na léegi nag liggéey bi ci laa jublu ni leen dégguma laay bañ dëgmal naa ko te ma wàññi lu ma am danaa ko ci def lu ma waay jox danaa la ko ci defal dajale njaboot bi soññu leen daal di joxaat ndigal sëñ Fallu ak sëñ ma ñu dellu ca carrière ndax bi maam Thierno di teg xeeru jumaa ji jëkk ji ca carrière bu jëkk ba sëñ Fall ak sëñ ba ñoo demoon ca carrière ba ñoo ko jiite joon ñoo fa newoon bi sëñ Moussa di yëngalaatee liggéey bi sëñ Fall moom mi la waxaat mu ànd ak sëñ Massamba delluwaat ca ca carrière ba ñu ñëw léegi carrière bi ndox lay jóge mag ñi dañ koy wàllu ci seen bopp amut ab sareet booba xewut mm-hmm. oto jàppandiwut mag ñi dañuy yanu bopp lu mu rëy rëy wenn xeer lay yanu ñuy yanu ji ndox di indi Touba te booba itam lekk bariwut bari na ci Touba ñoo xamante ni nii booba jombas bii daanaka la ñuy baxal mhm. moo lekk ñeneen ñi ci des sax ba jamono joo xam ne buñ koy soq doomu jombas ngay dagg dugg ci biir suñ mën dumbe indi fa ay ay sekkar nay weñ yu yu mag a mag yoo xamante ni bu nawetee mag ñu topp déeg yi di ko root di def ci sekkar na yi di conserver ndox mi conserver ndox mi su nawet bi jàllee buñ jaayee gerte gi jënd ciment tàmbali tabax nga xamante ne nii ci sëñ Modou daa daal di baat di kër gi sëñ Tuubaa tudd ci am pénc ci biir këram la tudd sëñ Tuubaa ko def moo doon kër gi bu njëkk booy siyaare dañu lay ubbil kees nga dugg bi sëñ Moussa di taxawalaat jumaa ji la baat di kër gi ni leen imaam day jiitu te sëñ bi suñu waaye du nekk ginnaaw moom fu mu ne imaam la waaye moo moo moo ko jëkkoon a xiblaal ba ko fa defoon bu ñuy julli dañuy wan sëñ Tuubaa gannaaw te nee na bi imaam la du def gannaaw leen sëñ bàkk bi soxoon na ko ni ko yow mi xam lii ngaa waroon di jiite <laughs> moo tax mu waroon sëñ bàkk bu suñu xiblaalaat jumaa ji bootal ko sëñ bi ndax waaye sëñ bàkkee ko xiblaal sëñ bàkkee ko xiblaalaat mhm. moo ko xiblaal bootal bootal jumaa ji sëñ bi sëñ bi jumaa ci mën dara lay tàmbalee jëm soxla boo taxawee ci même dër bi barabu sëñ Tuubaa ba sa ginnaaw moo tax ñuy wax nañ jumaa ji ay armeel la xamuñu jumaa dañoo bëgg lu bon di ko wax waaye xamuñu néewut ci biir jumaa ji jumaa jaa ngi tàmbale ci ci ci ci minbar bi fi imam bi taxaw jëm soow te suñ baa ngi ci sëñ baa ngi ci mbit ñu ci jumaa boo ko defee nag bi mu defee reconnaissance place bi daal di tàmbali fondation bi tàmbali fondation bi moo doon la 4 mars 1932 waaye tegu xeer wala 25 mars la Hmm, tegu xeer wala 25. le 25 mars 1932 la tàmbali gas fondation ba parce que moom daa gas fondation ba pare door a tegu xeer léegi la ñu fekk ndam fooy fooy gu nii yaa ngi ñu teg caw wuti luñ ca def. ci def ba pare. moo tax sëñ Thierno Diouf Lambaye noonu dama ko mos a wax ni ko dama bëgg nga wan ma piisub góor nu muy mel ak piisub jigéen nee sëñ Modou ni ma jublu ci lan nee ma ni ko bu ma xamee piisub góor dama la ci xotti tubéy moo xamee piisub kumba dama ci xotti piisub jigéen dama ci xotti ay kumba ñun ñëpp nu waddu ji yow rek yaa fii góor yaa war a takk tubay sëñ Thierno ko waxoon moo ko waxoon moo nga xam ne boobu la engagé liggéey daal di soññi soññi seex si nag tasaare tool àllal bayi te loolu yàqanu ko woon dara ci njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne dañ leen a war a saytu mu yor leen mm-hmm. ndax bi sëñ bii dem sëñ Blaat mi ci mag ci ñi gën a féetu suuf fukki at ak ñeent la waaw fukki at ak ñeent sëñ bi de sëñ bi fukki at ak ñeent la te moo ci mu nekk ci jumaa ji boole kooku yar yar yar njaboot bi àggale njàngum njàngalum àggale seenum njàng ak seenub yar mm-hmm. nga xamante ni nëgëni waroon naa fekk ñoom ñuy def defaa nga yoo xam ne ñaan ñoom kat seen bàyyi da leen a yorut moo tax dëgg la waaye suñu leen tey bi wax naa la doom sëñ Tuubaa yëpp a yem kon sëñ Moussa mi leen doon yar yàqu leen dëgg la sëñ Amadou xam naa ne waxtu wi ndeysaan daf nañu li duuf ci nag bi xadi ndawul ci cin li Cheikh Moussa wàcc na moom la ko sëñ Mbay Jaxate waxoon rek euh, Cheikh Moussa Cheikh Moustapha euh, ñëw naa ci yow ñëw naa ci yow jébbal la lépp yow Moustapha euh, Cheikh Mamadou Moustapha yàlla ñu ko yàlla fayal alkarim